tuubaa ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ tuubaa ku xir la ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ tuubaa ku xir la ci gan na gi kii ndaw ñépp nag lan woo màggal si leen màggal Tuubaa ga ñépp ko miin góor ak jigéen mag ak i ndaw ñépp lañu woo màggal si leen màggalu Touba. jërë ngeen jëf man mbégte lool di ànd ak yéen ci màggalu Serigne Touba gi journal officiel du màggal mu nekk journal bu nga xam ne comité d' organisation comité commission ak culture ci njiiteefu euh, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma di leen ko euh, dégtal saa su ne mu nekk kuréel bu nga xam ne kon euh, fii lay xewee ci màggalu Serigne Touba gi ki ko jiite di Serigne Amadou Gueye Ndiaye ci caméra yi Cheikh Tidiane Cissé ak Bakhidia ci kaddu gi Mamadou Moustapha Mbaye mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa wabarakatuh ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ Tuubaa ko xir la ci gan 3w màggal tiire touba point org ngeen ci àndal mbokk yi li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké doon dalal waa GFM moom Serigne Bass profito ci occasion ba bee ay kaddu euh, daal fàttali li nga xam ne kon Serigne Touba def na ko ci dinay islam taxit saa su ne bu nee fukki fan juróom-ñett ci weeru safar mbooloo mi bawoo fépp ci biir àdduna ñëw fii ci Touba dinañ ko diglu ci biir xibaar yi fekk na waa Hizbut Tarqiyyah ñoom daal di euh, daal di taxawal benn télévision Al Mouridiyyah TV doon dalal seen dem ci biir àdduna nit ñi gën a yeew ci yoonu murit nit ñi gën a yeew ci liggéeyu Serigne Touba gi danañ déglu Serigne Youssou Diop di ko jeexale ak Ibrahima Traoré moom mi nga xam ne mooy directeur commercial bu Sonatel Sonatel moom it bokk ci ñi nga xam ne danoo ñëw ngir jàpp ci màggal gi ñoom nag indi nañu ay jumtukaay yu am solo ngir mën a yembal euh, jokkaloo bi waaye it ngir mën a yembal couverture médiatique bu màggal bi danañ déglu Ibrahima Traoré mbokk yi lii buñ ci juglee danañ toftal li nga xam ne koy mooy ganu xibaar yi Serigne Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacké laataa kon ñuy euh, jeexal ci ab tëj Mamadou Moustapha Mbaye ngeen ci àndal mbokk islam baa ngi woote bésum màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ Tuubaa ko xër la ci gan salaamaaleykum ni leen ko waxee kon ci bopp xibaar yi Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké doon dalal waa GFM ki ko jiite di du Ibra Kane ñëwoon ngir indi li nga xam ni kon ñoom la nama def eh, ci màggal gi eh, Cheikh bas nag daal di profité ci occasion boobee dikkaat ci li nga xam ne Serigne Touba def na ko ci yoonu murit Serigne Touba def ko ci diine islam taxit fépp fu ne nit di fa bawoo di ñëw fii ci tubaa ngir eh, teewlu màggal gi Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké dikkaat ci yoonu géej gi ñu déglu ko. ndax màggal gi moom day xew bu rëy. boo xam ne njariñam li mu làmboo ëmpatul kenn ci àdduna ni ko sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa waxee rek naan nun Mouride mooy suñu feet indépendance ndax gëm nañ ne ci lañ jote suñu bopp ndax bu dul kon a tukki sëriñ Touba bi rek la ma waxaloon boppam rek kon nasaraan te mooy xalaatu tubaab yi mooy gañe kon ci senegal ak li ko wër te bu boobaa ñëpp dañ tàbbi sawra te sëriñ Touba wax na ne moom ci boppam law tanassartu la daxaltu naar wal iyaas billahi taala moom ci boppam nee na bu Touba bi woon nee na moom ci boppam daa tàbbi sawra kon tukki bii lépp loo ne am nañ ko rek jàpp nañ ne moo ko may sëriñ Touba nag dafa waxoon ci tukki bi muy dem dafa waxoon ne ndax booba daraje li ñuy wax alxutbaan yi amoon na ko te xutbu zaman bu dee ci daraje mutasawwifoon yi garaat mënu ko féete kaw waaye ba mu ci àggee nag lii nga xam ne suñ boon defal na ko ba tey muy loo xam ne adduna sépp tëg nañ seen bët boo cër bii la xeme woon muy loo xam ne nag da ko jaayantoon digganteem ak boroomam muy lu diis loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy lépp nekkoon kilifaam di roy teefam di jëwriñam mu wëlbati ko nekk xaadimam di ko liggéeyal. sëriñ Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké porte-parole xalif général des Mourides mooy nekk sunu ganu xibaar ci ñaareelu xaaj bi. médiatisation informatique ak lu jëm ci wàllum télé ak rajo nekk lu am solo ci fépp foo dem ci biir àdduna yoonu dem damit fexe ba am ab télé mu nga xam ne ay doomam ñoom ñoo ko samp muy waa Hizbu Tarxiya doon def lancement bi ci teewaayu sëriñ Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké Youssou Diop bokk si ñi nga xam ne kon nañ fa kàddu di wax ne kon ñoom lanu bëgg def weesuwul fexe ba fépp foo dem ci biir àdduna ñu gën a xam yoonu Serigne Touba yi ñu déglu Youssou Diop. suñ ne télévision boo xamante ne ñu saña a bind ci mbedd yëpp sañ a brandé ay oto wax ne la première chaîne IPTV au Sénégal loolu du waxi coono ni ko yàlla suñu borom dogalee rek noonu lañ ko waxee mooy tey jii télévision yaatu na lool am na fu ne ci àdduna si waaye li nga xam ne mooy révolutionner télévision. télévision du futur sax sañes na ko tuddee nga xam ne na mu yaatoo Amérique sax boo demoon Europe ñoom tàmbali nañ ko ba def ci jéego waaye soreegul sax nañ ko nañ ko bëggee mooy li ñuy wax la télévision connectée mooy li ñuy wax ba tey IT mooy yi muy xam-xamu télévision boo xamante ne tey jii dañoo weesale nit ki mu mel nii da ngay toog ci sa télévision di xaar benn émission boo xam ne dañ naan la juróom-benn waxtu lay jàll fekk yow yaa ngi julli nga tisbaar bu noppi te loolu mën a koo ñàkk seetaan nga toog di xaar di xaar ay waxtu ngir loolu ñëw loolu dañoo bëgg loolu ñu weesu dañoo bëgg booy def sa farata di dox booy def sa farata nekk sa barab liggéeyukaay boo nekkee sa njaboot foo bëgg seetaan nga mën a seetaan te it booy seetaan it nga seetaan li nga bëgg seetaan nar a tàbbal seen loxo ci màggal gi def ci seen kéemtalaay kattan jëm cee feeñ waa Sonatel ñoom it ne duñ des ginnaaw taxit def délégation bu am solo gis ki nga xam ni kon moom mooy porte-parole xaruf général des Mourides waxtaan waxtaana moom dajeeg presse bi wax li nga xam ni kon nam nañ ko indi ci ay jumtukaay ngir woote gi mën a gën a yomb waaye li nga xam ni moo jëm ci wàllum couverture médiatique gën a mën a yemb ci màggal gi ñu déglu ki nga xam ni moom mooy Ibrahima Traoré moom mooy directeur commercial du Sonatel. li may wax tam màggal Touba màggalu Sonatel la. Euh, duñ ci xaar kenn te liñ ci daan def at bu ne loolu lañ ci def ren suñ ci mënul yokk duñ ko duñ ko wàññi dispositif yi ñu def nag bi ci jiitu mooy vraiment dispositif technique bi pour fexe que ñi nekk Touba ñëpp ñu bëggee jokkoo mën a jokkalante ci ci ci ci benn duñ ci am benn jafe-jafe loolu vraiment mooy li nga xam ne moom lañ ci gën a gën a gën a jublu te incha allah dina demee noonu parce que màggal bi nga xam ne moo njëkkoon am ci at mi comme ni ma doon wax sànq yàlla def na ren ñu am ñaari màggal ci benn at bi si 2013 bi bu njëkk bi def nañ ko daaw bi ñu defee bilan bi vraiment ñëpp kontaan nañ ci amuñu ci benn problème technique et que bii di ñëw nii am nañ ci yaakaar bu bëri parce que dispositif bi nga xam ne moom lañ defoon ci ci ci ci ci màggal bi passé lii ñu def ci bii moo ko ëpp. nag mooy innovation yi ma doon wax rek tey jii euh, kenn réeréewul mbir ne Sonatel moo am meilleur réseau euh, trois g ñoo fi gën a baax qualité te aujourd'hui ñëpp ñu ngi koy dund te ñëpp gis nañ ko donc li ñu bëgg mooy loolu dafa di loo xam ne dañu bëgg tamit Touba profité ci bu baax a baax. parce que li ñu gën a tiital du du du du du jokkalante bi téléphone bi wax bi mais réseau internet bi parce que gis nañ ne de plus en plus dafa am ñoo xam ne dañ nekk bitim réew di suivre màggal bi foofu lañ koy xoolee donc looloo tax. surtout également par rapport ak comité d'organisation bi tam jox nañ leen ay liaisons spécialisé yoo xam ne leen di permettre ñu mën jël màggal bi di ko diffuser sur euh, sur internet. Traoré moom mbokk yi moom mooy jeexal xaaj bu njëkk bi def am pàttali daan dugg ci ñaareelu xaaju xibaar yi bokkoon na ci la nga xam ne kon euh, daal dinañ koy fësal ci xibaar yi Serigne Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacké mi doon dalal waa GFM ñoom ñoo ñi nga xam ni kon dañu ñëwoon ngir fësal la nga xam ni kon nam nañ ko liggéey ci màggal gi Serigne Bass Abdoul Khadr dellusiwaat ci liggéey bi nga xam kon Serigne Touba def na ko ba tax na kon fi mu toll nii daanaka bu nee fukk fan ak juróom-ñett ci weeru safar euh, ñëpp bawoo fépp ci biir àdduna ñëw fi nga xam ne moom mooy Touba euh, fekk na Serigne Youssou Diop bokk ci Hizbut Tarqiyyah ñoom doon amal ndaje ak taskatu xibaar yi waaye doon dalal ki nga xam ne mooy Cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacké ñoom nu daal di lancé seenu nu koy woowee Al Mouridiyyah TV dégg ngeen ko ci la nga xam ne kon fësal na ko ci ay xibaar nu daal di koy jeexale ci Ibrahima ne kon mooy directeur commercial bu euh, Sonatel indi ay jumtukaay yu nga xam ne kon jàpp nanu ne bu dox na li nga xam ne jokkaloo bi dana gën a yemb ci diiru màggal gi euh, bàyyi ngeen ko xel mbokk yi li mooy xaj bu njëkk bi dem dellu si li ñuy def dikk ak yéen ci ñaareelu xaju xibaar yi. Tuubaa ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax Sëriñ Tuubaa ko xër la ci gan. ñaareelu xaaju xibaar yi Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké lay doon moom mi nga xam ne kon moo na ma nekk sunu gan Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké xam ngeen ni moom mooy jiite comité d'organisation bu màggal gi rax ci doole moom mooy porte-parole xalif général des Mourides doon dalal ay taskatu xibaar dikkaat ci li nga xam ne kon mënees na ko jàpp ci li nga xam ne Serigne Touba def na ko ci yoonu islam bi ci dina islam te xit moom mu dikkaat ci bu yaatu yaatu ñu bàyyi ko xel. wa salaamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi lay dellu ab nuyoo bu baax yow Mamadou Ibra Kane ak mboolem ñi nga àndal ñëpp bàyyi ko ci euh, télévision euh, Futurs Médias ci ndigalul seen kilifa euh, di Youssou Ndour di taalibe di lépp ci kër gi leen dalal jàmm bu baax ci turu Serigne Cheikh Sidi Mouftar mii nga xam ne moo nekk ci bopp yoonu murit te lépp loo xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci mbirum Serigne Touba jëmale ko ci yoon wi lépp rek moom lañ koy defal ndax kenn suñu cee def dara ci lu dul ndigalam kenn suñu cee def dara ci lu dul xalaatam kon ñu ngi leen di sant bu baax ci yéene ji nga xam ne. am ngeen ko ci liggéey bi di màggal gi ndax màggal gi moom day xew-xew bu rëy boo xam ne njariñam li mu làmboo umpatul kenn ci àdduna ni ko sëriñ Abdul Ahad Mbacke daa waxee rek naan nun Mouride mooy suñu fête indépendance ndax gëm nañ ne ci lañ jote suñu bopp ndax bu dul kon a tukki sëriñ Touba bi rek la mu waxaloon boppam rek kon nasaraan te mooy xalaatu tubaab yi mooy gañe kon ci Sénégal ak li ko wër te bu boobaa ñëpp dañ tàbbi sawara te sëriñ Touba wax na ne moom ci boppam law tanassartu la daxaltu naar wal iyaas billahi taala moom ci boppam nee na bu tubaab bi woon nee na moom ci boppam daa tàbbi sawara kon tukki bii lépp loo ne am nañ ko rek jàpp nañ ne moo ko may. Serigne Touba nag dafa waxoon ci tukki bi muy dem dafa waxoon ne ndax booba daraje li ñu wax alxutbaan yi amoon na ko te xutbu zaman bu dee ci moto daraje mutasawwifoon yi garaat mënu ko féete kaw waaye ba mu ci àggee nag lii nga xam ne suñ doon defal na ko ko tey muy loo xam ne àdduna sépp tënk nañ seen bët booba cër bi la xeme woon muy loo xam ne nag da ko jaayantoon digganteem ak boroomam muy lu diis loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy lépp nekkoon eh, kilifaam di royteefam di jëwriñam mu wëlbati ko nekk xaadimam di ko liggéeyal yërëm ko lool ci yërmande ndax xamal ko ne lii nga xam ne xemmem ko ko de cër la bu rëy waaye dafa weesu ndax ku ma sànn agsi fii nga agsi rek bu ko xemee ba tàbbi ci biir boo yeexee boo duggee ba ci biir la ko cay fekk mooy rekki ku ngëm te loolu yéenewuma la ko sëriñ Tuubaa nag ci ni ko suñ borom waajale ci jom ji ak fidwa mu xamal ko ne ko ruu gi de ak jëmm ji binduma ko ba xam lim attan lim attanut loolu ci dogalu suñu borom la nekk waaye bu ko jëmm ji attanee de ak ruux gi fit wi ak jom ji attan ko moo tax Cheikh Ibrahima Fati daan na wax ne Serigne Touba lu mu am na jom ko ko may loolu kon mooy màggal gi Serigne Touba wax ne bi may dem ci géej gi nag damaa meloon ne ku nuyu amee xetu laj ko lañ mu bàyyi xet ga ci sama loxo nee na ku ma séen ku ne nag ne ma may ma laj ko lañ waaye nee na booba waxuma laa di am laj ko lañ waaye xawma fa laj ko lañ nekk nee na ma ne kon nag lii ngor ci man mooy fexe ba wuti laj ko lañ daana waaye booba de liimaan ak lislaam ak lixsaan ñëwuma ci nabiyul mursal ñëwuma ci malakul muqarab kon loolu mooy li saw bu demu géej gi nga xam ne tey moo indi màggal gi muy tukki bu diis itam boo xam ne nit ñi dañ ko tàmm ndax waxtu ne dañ koy fàttaliku di ko tudd ba miin ko ci xel yi te doomu aadama dafa baaxoo lu mu yàgg dégg rek bu yàggee eh, xelam da koy miin ba mu fàtte ko waaye itam la ko taxoon a jóg ak lam fa daj lam fa jànkoonteel ba suñ borom jox ko cër bi mu ko jox tey waxtu ne war nañ ko fàttali ko waare ci bis bi te xam ne lépp li ko laloon mooy yàlla lépp li ko laloon mooy jaayante ak rasulullahi lépp li ko laloon mooy bëgg xettali mbindeef yi bëgg rambu leen ba bañ a tàbbi sawara ci xeetu rasulullahi sallallahu alayhi ndax Serigne Touba loolu lu mat di leeral la ndax dafa bokkoñ ci li ko gën a ñor mooy jullit yëpp àndandoo nekk benn comme ni ko Cheikh Sidi Moukhtar di waxee ndax kenn mës a gis si ñaan fu muy ñaanale rek ñi nga xam ne ay jullit lañ ñëpp loo koy boore kon loola moo war lor mu dem ngir xeetile xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam suñ baan defal ko ci ndam loo xam ne wax ne ne mosu koo defal kenn te dootu ko defalaat kenn kon loolu mooy lii ko suñ borom jox tey kon noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yéen ñi itam liggéey bi nga xam ne yéen a koy def ci màggal gi ngir feeñal liggéeyub Serigne ndax liggéeyub Serigne Touba moom day loo xam ne lu noppi la ba noppi lu sotti la it ndax dogalu suñ borom la te yàlla lépp loo xam ne dogal la ko ab mu lottu na ci gàllankoor ko wala mu lottu ci yëkkati ko waaye nag lu ne suñ borom ci loxo ay nit la ko jaarale. kon nag ku yàlla defal tawféex ba nga bokk ci ña koy wane ba képp koo xam ne xamutoon Serigne Touba ndax euh, Cheikh Abdou Khadim Mbacké daa wax naan Serigne Touba kenn bañu ko des koy umpule ndax ne nit du bañ njëriñam moo tax Serigne Touba sax boo ko seetloo fépp muy waxee ci lu mel noonu rek walakin aksara naasi laa ya'lamuun loolu lay wax ku ko xamut rek kon nag nii ngeen di def itam ndax euh, li ñu tuddee communication. muy loo xam ne àdduna ko indi jamono indi ko day loo xam ne dafa am solo ci lislaam wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaas bayaan boobu ci la communication dugg wala qad wassalna lahum alqawla laallahum yatazakkaroon loolu itam communication ci la dugg kon ne képp koo xam ne yaa ngi ciy liggéey te di ko sellal fexe ba li ngay wax nit ñi mu doon lu wér loo xam ne da ko xam dóor ko génne bu génnee nit ñi mañ koo jariñoo loolu itam bokk na ci jaamu yàlla ci bindee yi te loolu te mooy xidma te loolu bokk na jaamu yàlla li gën a màgg kon yéen itam ñu ngi leen ci sant bu baax ci yéen ji nga xam ji ngeen xam ne am ngeen ko ci ngir lépp loo xam ne xew na ci màggal gi wala mu lu jëm ci màgg ngeen fexe ba wane ko ba ñi nga xam ne fekkewuñ màggal gi wala mënuñoo màggal si ñu dund ko fañ ne ba mel na ñu ñu nekk ci biir Touba kon ñi leen ci gërëm bu baax di ci gërëm mboolem ñi ngeen ko àndal ñëpp seen. majmuwa bépp bàyyiwuñ ci kenn di leen yóbbantam nuyoo ci seen kilifa Youssou Ndour loolu li nga wax ci rajo yi léegi xam naa sax danga nga xaw a juum rajo yi du woon ci jumaa ji waaye fii ci biir kër gi mm-hmm. waaye loolu itam ñu ko ci sant ndax dëkk bi moom lu fi luñ fi defal ñu fi def rek ngir yéen rek Sëriñ Tuubaa lañ ko defal kon nag eh, ci bañ a guddal ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla defal leen tawféex ci liggéey bi ngeen di tàmbali mm-hmm. dugg ci bismillaahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilah rabbil alamin te yàlla suñu bam gën leen ci defal ndam ndam lu ëpp lim leen ci daa defal te lépp itam mu doon loo xam ne njariñu nit ñi lay doon réew mi lay doon ndax Sëriñ Tuubaa daa wax ne allahu yansurni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri bi laa njariñ lu anto lor képp la loo xam ne itam njariñam mboole ku di jul la yéen na la ko waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal leen tawféex gën a barkeel kër gi yéen ñi ci liggéey yëpp itam suñu borom defal leen tawféex ci barke Sëriñ Tuubaa yi kon xibaar yi buur na ñu ngi ko doon defee fii ci résidence Khadim Rasoul suñu ginnaaw ci image yi yéen a gis seen kon juma Serigne Touba gu taaru gi ni nga xam ne kon Serigne Sidi Mokhtar Mbacke waxoon na ko namme ko noonu ñu ngi koy defandi ndaxte ñaari soror la waxoon soror bi gis ngeen ko nii ñu ngi koy euh, wéndi tabax bi daanaka sori na lool ñu ñaanal Serigne Sidi Mokhtar Mbacke mu yàgg fi lool Cheikh Diane Cissé moo nekkoon ci caméra bi ak Bakhé Dia Mamadou Moustapha Mbaye euh, ci kaddu gi ci jàppandalu kon. Amadou Gueye Ndiaye nu leen jox dig daji incha allah ci kanam ak jàmm jërë ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ Touba ko xir la ci gan. Touba ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ Touba ko xir la ci gan. kii ndaw ñépp nag lan woo màggal si leen màggal Tuubaa ko miin góor ak jigéen mag kii ndaw ñépp lañu woo màggal si leen màggalu Tuubaa ko miin